voilà Modou Ndoye maire de la commune de Ndoyène euh, dans le département de Kébémer voilà jërëjëf donc dañ fi teew tey en tant que invité donc waa Pipa ñu invité ñu ñu nekk jeune boo xam ne dañoo nekk dañoo nekk maire euh, ñu am benn avant projet boo xam ne ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy combattre depuis depuis depuis donc dans quelques années pour ñu xool nu ko au niveau national au niveau même de l'Afrique nu ñu koy nu ñu koy valider ñun aussi dañu ñëw invité woon en tant que jeune pour ñu mën a partager ñun suñu expérience ak ñoom ñun leen def ba nekk xale mais ba nekk maire suñu gox expérience boobu ñu xool yan stratégie la ñuy mëne pour ñu am euh, élu yu bari yu ay jeunes ci élection territoriale yi xam ne dafay ñëw ci décembre euh, janvier deux mille vingt-deux loolu ci qualité boobu la ñu invité ñu ñëw participer ci ci activité bi. expérience boobu boo ñu mënoon wax tuuti ci loolu lan li leen ci wax mooy que expérience bi euh, nekkul lu lu yomb mais comme constat bi ñu ko defee rek mooy que euh, bu yàggoon dañoo jàppoon ne jeunes yi bu nekkee ci parti politique yi dañ leen utiliser rek utiliser comme ñoo xam ne nii ah, bu ñu waree xeex dañuy xeex bu ñu waree mobiliser dañuy mobiliser amuñu benn euh, benn benn benn benn benn quota wala benn charte boo xam ne dañ leen permettre ñu mën a accéder ci ci au niveau additionnel léegi ñu xool na nag vraiment loolu war na jeex jeunes yi dañoo war a am. am taxawaay ci ci ci parti politique mais dañoo war a taxawaay vraiment ci au niveau euh, de des des des collectivités territoriales. loolu moo tax ñu jàpp ne vraiment danañ ñu dañ fi ñëw wax ak ñoom suñu expérience expérience bi mooy que jeune bi en tant que tel dafa am aussi dafa war a am euh, euh, parcours dafa war a nekk quelqu'un boo xam ne au niveau de son parti mais aussi au niveau local dafa war a affirmer leadership am parce que nag du n'importe kii rek mooy ñëw ñu ñu investir la wala ñu ñu ñu ñu promouvoir la comme comme kii yow boo xam ne liggéey bi loolu la ñuy basé wu pour au moins que ñu ne kii buñ ko buñ ko investir war naa bañ a gën a goxam def na fa ay ay réalisation mais wane na fa ci plan yu bëri sur le plan social sur le plan de la jeunesse ci yu bari bañ xam ne kii buñ ko taxawalee ëllëg war naa mën a war naa mën a war naa mën a porter candidature mais aussi war naa mën a gagner ñun ci loolu euh, ci lañ ñëwee ñu nekk un jeune boo xam ne presque depuis 15 ans ñu ngi ci ñu ngi politique bi nekkee étudiant lañ commencé di politique ci parti politique ñu nekkoon 2009 2014 aussi conseil euh, municipal conseil rural boobu autant on parle de conseil rural à partir de 2014 ci la suñu parti l'APR investir ñu jox ñu mandat ñu porter liste bi ci gagné voilà. élective. Donc, vous, par compte de votre expérience, que la commune de Ndoyen, dans le département de Kémer. Euh, nous sommes conviés dans, ces, dans cet atelier donc, organisé par la PIPA pour euh, la, donc, la vulgarisation de, donc, de, de ce avant-projet de 30% de jeunes euh, au niveau donc, des instances décisionnelles. Euh, nous saluons vraiment cette belle initiative. Nous, on est conviés en tant que jeunes élus pour, pour, pour, partager avec, avec, avec nos, nos collègues jeunes euh, mais, euh, sur quelle stratégie donc euh, faut, mettre en place pour qu'il y ait plus d'élus euh, jeunes euh, donc, lors des échéances donc, électorales en vue. Et pour dire que donc, je dis que c'est facile, euh, ce n'est pas aussi facile. Parce que pour être élu, il faut avoir la confiance de son parti, mais aussi il faut avoir la conscience au niveau local. parce que c'est pas n'importe qui, qui qui va être donc investi comme tête de liste mais qui va être investi comme élu local il faut avoir donc prouver dans sa localité il faut avoir un leadership affirmé donc nous, nous, sommes là donc, pour un avec notre, parcours, mais comment nous avons pu faire pour arriver à, cette, à cet instant-là. tout je dis que donc on ne lève pas un jour pour être maire ou élu local. Il faut dans sa localité euh, euh, prouver, essayer d'être quelqu'un qui, qui, qui est visible. euh, quelqu'un qui est vraiment une identité remarquable au niveau local. Moi, je suis un, un, produit de, du mouvement associatif. J'ai été au niveau donc, des, des Nawetan, au niveau de toutes les organisations de jeunesse. Donc c'est à partir de là que, donc, que, que j'ai pu m'imposer. Que lors des élections locales, que mon parti a eu a confiance de moi, m'a donné le mandat et j'ai porté la, la, liste et j'ai pu gagner au niveau, au niveau local. Comment expliquez que les jeunes soient majoritaires dans début, donc, le jeune était considéré comme quelqu'un qui est là au niveau du parti pour mobiliser, pour, pour vraiment faire des manifestations entre autres, apporter des déchets. Mais les jeunes maintenant, ils sont conscients Euh, euh, euh, nous représentons presque 70% de la population. Et nous, il y a beaucoup de cadres au niveau des partis jeunes. Et les jeunes doivent aussi prouver, on doit aussi apporter notre contribution vraiment pour le développement de notre pays, mais aussi pour le développement de nos territoires. Voilà.